lekk yu bon bari suukar bari xorom bari lu nii ñaareel bi mooy bañ yëngal sa yaram yaram bu dul yëngatu mënul wéy doo naan ndox mu doy yaram boo ko jëlee soixante onze pour cent si yaramu nit ndox la boo dul naan sa deret day diis ba xam ne yu bari du wéy ñeenteel bi mooy ñàkk nelaw nelaw bu doy nelawu guddi mm-hmm. nit ku dul nelaw au minimum juróom benn waxtu guddi doo mën a wér bi ci mujj juróomeel bi mooy munoo lu xew rekk nga yóbbu ko fu jéggi dayo mm-hmm. dugg si liñ naan stress ba mu lay dugal si mbirum tox wala naan sàngara wala def yeneen pour dalal sa xel c'est kenn yarul la si loolu donc loolu mooy ñun xam ne moom la ñuy gis nii tey mhm. ñu war ci bàyyi xel ñu ak yéen journalistes si gën a yee nit ñi parce que yooyu bu la dalee soins yi mu lay jaral ak jafe-jafe bi mu lay jaral mhm. bu la reyul fitna bi muy indi indi ko sa njaboot mhm. lu doy waar